الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان كوشي تي لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ñu ngi yëkkati sunu nuyoo ak sunu ziyaara jëmale ko ci xalifatu saaxibil faydati at tijaaniyati muy xalifa Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu di cheikhana Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ñun njabootu Serigne Omar Soxna ca Fatick nekkoon muqaddamu baay bokkoon ci muqaddamu baay yi nga xam ne bàyyi leen tànnaloon boppam gannaaw bam leen mottalee la waroon a mat ca ñoom mu tànnoon ko sëriñ bi moo ñu gën a xam taarix boobu yépp yóbbu woon ko ca fatik fekkoon ko ca fatik joxoon ko ndigal mu toog foofu wesaareel ko diine ji ak tariqa bi ak faydu bi ci biir siin nekkoon nag ka ko fa représenté woon mu nekkoon nag bàyyi dund ak moom ci ak taalibe ak kóllëre googu ba yàlla dogal mu bàyyeekoo fi gannaaw bu fi bàyye bàyyeekoo te tey la fi gën a nekk comme niñ ko xame yàlla dogal nag tey ki nekk ci boppu njaboot googule mooy sunu mag di xalifa njabooti Serigne Omar Soxna ñu ànd ak moom fii tey mooy Serigne Aliou Soxna mii nga xam ne moom moo toog ànd ak rakkam Cheikh Mouhamadul Amin omar soxna ànd ak rakkam cheikh ibrahim omar soxna ak dëkkandoo ya nga xam ne ñoo dëkk ca médinatu dareel ca fatik ku ci mel ni góor gi sonar ngom mu ngi nii toog babu juuf mu ngi ni toog babacar juuf mu ngi nii toog góor gi jaaw mu ngi nii toog mouhamadou fay mu ngi nii toog ak ki ñuy wax waagaan juuf mu ngi ni toog paap kebe mu ngi nii toog bay jaw ñëw na ak Cheikh jàlloo képp koo xam ne fàtte nañ laa tuddit sunu xol tudd na la sëriñ bi ne woon rek nañu jëlagum lenn ca dëkkandoo ya ànd ak ñoom li ko fi tax a ñëw nag moom dina ko waxal boppam dama ko doon ubbil rek wone ne délégation bii la tànn ñëw fi tey ngir beesal ay wóllëre beesal ak taalibe beesal li nga xamee ne moo war ci ay dëkkandoo rawatina ci diggante taalibi ak sëriñ yàlla dogal nag moom dina dugal boppam ci loolu te mu ngi yaakaar jataay boo xam ne sax moo gën a yaatu bii ci yéeneem ci xolam ngir boobaa mu nekk ci teewaayu mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo aji woon ci sëñ Omar Soxna ci siin mu yéene mu nekk ziyaara bu mag boo xam ne dinañ ko amal fii ci saron yow mii di xalifatu Cheikh Ibrahima Niass di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim ñu am mbégte nag ak contentement bu mag ci biñ fi fekkee sarak ju tedd ju mag ji di Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahim nga xam ne keroog bi li am amee moom nga jox ndigal mu ñëw foofa wuutu la fa te musoo faa jóge taxaw fa taxawaay bu rafet ba lépp loo xam ne santoon nga ko fa moom def na fa lu kawe njortam ñu koy sant ñun famille bi yépp di ko gërëm di sàkku ci moom ñaan ci buntu boobu nga xam ne nag ziyaara si nañ la ko ñun njabootu sa Omar Soxna ñu ngi koy wëyal ci képp koo xamee ne doom la ci bàyyi wala muy sët ci baay wala muy ko aju ci baay ziyaara boobu ñu ngi koy wëyal ci ñoom ñépp di leen ziyaara kon sëriñ bi lii moo nekkoon yoon lii moo nekkoon tànk yi alhamdulillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد تيجان إبراهيم سنمك مك suñu xalifa suñu wasila ñu lay nuyu nuyu bi gën a tedd ànd ak njabootu sëriñ Omar soxna yépp ay góoram ay jigéenam ay magam ay ndawam tey jii tey ki mag ci njabootu sëriñ Omar soxna mooy jigéen ñu waxaa isatu soxna ma waroon toog fii jël kàddu wax waaye dañ ko fi toogal toogal waaye tey moo waroon jiite jotaay bii tey moo mag ci mbooleem njabootu sëriñ Omar Soxna kon ñu ngi la koy jotal nuyoom ak ziyaaraam ni ñu la jotalee nuyoo ziyaara njaboot ga ak dëkkandoo yi lenn ci dëkkandoo yi ñu àndal biñ taxawee ci buntu kër ga ñëpp a bëggoon ñëw waaye dañ leen may leen ñu ñu yegg bi ci xalifa bi ziyaara ko ñaan ko beneen yoon mu may ñu ziyaara boo xamee ne yéen ñëpp du ngeen mën a ñëw ak mboolem taalibe yi siin loolu la Ibrahima doon junj léegi gannaaw loolu ñu ngi nuyu Cheikh Makki Ibrahim di ko ziyaara mbooleem ak ay rakam yi nga xamee ne ñoom la bokkal xadara bi ak ay magam ndax rafet taxawaay ba mu taxaw fati keroog bi suñu mag ji jógee foofu rafet na lool rafet na fa rafetaay tàmbalee jëm kaw te matal na ko itam ca taxawaay ba ak ca kàddu ya kon ñu lay ñaan nga ñaanal ñu ko yàlla yàlla gën koo dëgëral te fépp foo ko yónni mu matal taxaw ba nga xamee ne loolu lañ yaakaar ci moom te incha allah am na yaakaar ne dina am bu loolu wéyee sëriñ bi ñu ngi lay xamal ne ñëw nañ ziyaar si la ndokkeel jaale si la sarak muy cheikh Baye Soxna sarak la woon mu jànge woon fii ci kër Baye du Thiam ba mu fa jógee Baye ubbi école arabe ca jëppal mu bokk ci njëkk fa nekk di fa jàng ba yàlla def ñu am bourse mook mbay ba Baye Omar ne ko Baye kay toog man mag laa bàyyil mbay mu dem booba la ñëw toog weeru koor jot bayo ma ne ñëw julli si fii juma bàyyi ne ko ana suma turandoo mu ne ko mu nga fa mu ne indil mako ko fekk bàyyi commencé na fii la be am semaine bam mu ñëwee dafa delu wat kamil bi ginnaw ne ah comme suma turandoo ñëw na de damay wat kamil bi non lañu ko bayo mar waxé Baay jël Baay soxna tek ko ci wetam firil ko alxuraan dalal ko ci kër abdullah mu firil ko alquran mu pare mu meeteel ko kaala ko ne ko demal teg naa la ci saroon baay ñun mësuñ gis lool xalifa boo xamee ne jël nañ beneen doomam def ko muy xalifa mu nekk ci ronam ci baay rek lañ gis mu def lool defal ko baay soxna kon lam digale woon sëñ Omar soxna ne ko sopp naa la bëgg naa la matal na ko moom baay loolu it la ñuy sàkku nag ñun fii ci xadara bii ci yow mii ba Baye Omar ñëwee ba Baye génne àdduna dama ànd ak sama baay ñëw ci roñ alaaji Abdoulaye mu ne ko alaaji Abdoulaye mu ne ko ñas mu ne ko ñëw naa ziar si la jaali si la jébb sama bopp ak samay doom ak lépp lu ma am mu ne ko abbaay ah, yéen dey yéen a ñàkk waay man ñàkkuma ndax am naa leen yéen a ngi fi ñàkkuma waaye yéen a ñàkk waaye ñun itam ñu ngi leen di xamal ne tey jii yéen yéen ñàkk waaye ñun ñàkkuñ ndax am nañ leen ndax yéenay suñuy mag ci fànn yépp nag fépp foo xamee ne sëñ Omar soxna taxawoon na fa bàyyi soxna taxawuñu fa gannaaw bi sëñ Omar jóge fu raw foofu ngeen ñu mën a taxawu te fa ngeen ñu taxaw woon ba dara xewut fa ngeen ñu taxawee rawatina nag bi li xewee kon ñëw nañ jëbal si leen suñu njaayal jëbal si leen suñu bopp ziar si leen dokkeel leen ci weer wi ñu jógee di weeru koor di ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal fan wi samay wax la ñu wax lii mboolem fu doomi bàyyi mën a dem ci siin itam benn bi la rek bàyyi lañu bëgg ndax sëñ Mor Soxna moo leen woon bàyyi sëñ Mor Soxna moo ubbi siin moom la ko bàyyi joxoon ne ko ubbil siin jox naa la ndigal nga ubbi ko mboolem képp koo xamee ne tey jii ñëw nga siin di fa oote ci taalibe ci wàllu islaam même bu nekkul taalibe alaaji Ibrahim Niass sëñ Omar Soxna moo la ñemeñ moo la ñemeñ loo siin ba nga ñimee taxaw biir siin di fa wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon ñu ngi lay ñaan nga ñaanal njaboot gi tànk yooyu nag lañ bëgg a taxawee yokk ko ci fànn yépp nag ànd ak bokk gi ci juboo ak nekkoo benn ak lépp lu ñuy def ñu yëgoo koog ñoom bi nga xamee ne ñoom itam dañuy yëg ne ñun ñii xadara bi rek moo ñu ñor leneen ñoruñ ñu utuñ maqaama utuñ darada dañ bëgg a doon taalibe rek taalibe gi ñu doon loolu lañ bëgg nga ñaanal ñu dëgg dëgg ñu nekk dëgg dëgg taalibe mais lépp loo xam ne pays bi ñu ngi koy def ci fànn yépp ñun tam ñu bokk ci ci booleem fànn yi nag ci wàllu doole ci wàllu am-am ci wàllu saxaafa almiya lépp lu di def daal ñu ñaan sëriñ bi na ko bàyyi doon defee bind lettre yi jox suñu Aliou Cissé lettre yooyu di ñëwaat nañ doon ñëwee ca kër ga ndax kat ñun amuñu lu dul fii te fii mooy suñu lépp moom la tiitaroo moom la ñuy noyee moom lañuy ñuy naatee moom la ñuy Baye Omar dafa doon lekk naan bismillah barke Baye soo tiimoon ak ñoom maam lekk di ñam te waxo bismillah barke Baye mu ne commencé laatal dama raxasu nga ñëw toogaat waaw moom noonu la doon dundee lu muy lépp lu muy def rek barke Baye ñes alhamdulilah rabbil alamina ci loolu ñu yar ci lañ màgg xamuñ leneen lu loolu kon seriñ bi ci gàttal lii moo doon ziara bi li doon moo doon waxtaan wi xanaa am na yeneen wax nag yoo xam ne ah, bëgg nañ ko wax waxanteeg yow ci ci ci taalibi ak doom ci ci taalib mag ak rak inshallah allah danañ ko wax ak yow ci kanam tuuti bu soobe yàlla mbolo mi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mbolem fu ngeen jógee ñëw ànd ak ñun leen na doon yiw ñu bàyyi te dellu ci zahir ak ci batin ñu bàyyi leen kàddu gi wasalaamu alaykum wa rahmatullah wa akhiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا أبي العباس سيدي أحمد التيجان وعن سائر الخلفاء وعلى رأسهم شيخ الإسلام وسعادتنا مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين مكي آه، مكي الإسلام مكي خمني ci mbokk gi gën a dëgër ci mbokk yi neen muy waa kër waa Alaaji Ibrahima Soxna ak sëñ Omar Soxna nga xam ne ñoom ñooy mën nañoo wax ne ñooy taxawaay Mawlana Cheikh Ibrahim foofu ca siin su yëf yi demee ci ñoom la suñu waxee waaw waaw la ci pay bi suñu waxee déet déet la ci pay bi kon nag su xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass yal na yàlla yokk leeram te may ko wér nga xam ne itteem yëpp ci pay bi mooy taxawal ko li bàyyi di góorgóorlu yëpp mu yokk ci ay jéego wala li nga xam ne xamoon na ne mébéti baayam la muy mu àggale ko te loolu lay def kon su ngeen amee bis bu mel noonu mu ebal ma ca xanaa daf may imtixaan kay daf may examen waaye fu ñuy fu ñuy séentoo Cheikh Ahmad Tidiane man ma ñëw fa dëgg-dëgg loolu natt bu metti la waaye nag ci ay ci xolam nit ku nekk yàlla ngi jëfee yow ci ni sax xol mel moom dafa yaatal dënnam yaatal xolam ba nga xam ne ci jamono Cheikh Ibrahim bi mu ñëwee ba agsi ci moom ku xool pay bi da xam ne yokku na ci zaahir te ni mu wekkoo ci zaahir noonu la gën a yokkoo ci baatin soo génnee bitim réew ngay gën a xam Dakar gi sax ku fa dem fay mel ni bàyyi ngi door a bàyyi ngi door a mi ngi door a xew léegi lu ñu wax ñu ne bàyyi ma da ngeen foog ne kii waaye yéen a ci mujj jot bàyyi bàyyi xewoon na buy jàgg waaw waaye yëpp yàlla nga ko feeñal ci jamono Cheikh Ahmed Tidiane kon nañ koy ñaanal leer di ko ñaanal yàlla may ko wér parce que jamono ji jàmm ji ak xeew ak yokk li bàyyi bayoon yëpp sax na sax na kon nag su fekkee ne am na usra boo xam ne soxna lañ sant kon ci jamono Cheikh Ahmad Tidiane yooyu waaye ne njiima sax na kon nag euh, yéen moom ay seen ay ayam gi mooy seen wàll ci ci yàlla na woon daje bii ndax yàgg nañ ko mébét am daje boo xam ne taalibe baay yëpp dañu do benn ku nekk def nga ci ay tànk ku nekk def nga ci ay tànk waaye moom yàlla yombal la ko ci jamono boo xam ne boolewu ci xuloo boolewu ci xeex boolewu ci ŋaayoo dafay jëflanteeg nit ci xol bu bu bu nooy boo xam ne yow ci sabab amoon lu may euh, daal di noyyi itam ci kanamam euh, mu daal di ebal ñu dem foofa ba ñu demee foofa gis fa foofu Fatick ci capital yi Mawlana Cheikh Ibrahim ndax kër yi dëkk yi bàyyi am kër bëriwul waaye Fatick ci la bokk waaw euh, am na kër goo xam ne depuis ba ma commencé di jàngale suñu ñëwee yóbbuwaan ci examen bi El Hadj Abdoulaye ni ma demal kër Ali mu dem fa. gannaaw gi waaw def naa def naa ay temps yu ay yëngatu sax pour. ñu dekkal kër googu mu dem dund waaye xam naa dafa mel ni yéen la doon xaar ndax lu jot ak yomb lu nekk nit bëgg na ko waaye nag su jotee lay gën a yomb boobu du am du am oote du am propagande du am dara te yàllaa koy sottal boppam ba ma fa demee uutu ko bët bi ngeen ko waroon jox ak respect bi ngeen ko war a jox moo tax yàlla yombalal ci suma ci ci ci ñëw ba ma fa ñëw ndax ki ma doon utu dafa lewet ki ma doon utu dafa am xol bu sell moo tax soo demee loolu sooy sooy dox ci ay tànkam jikkoom rek ngay mën a jëfe am na ay tànk bañ njëkk ñu indi néew bi kii bi xat na ba dañ maa yóbbu ci jumaa yi tëj ma waaw ndax ndax ndax xëccoo ba doon nekk bañ ne fañ noonu robee tamit am na ay ay ay ay ay ay maa ngi koy nettali sëriñ bi rek biig ndax damaa ñëwoon di ko tàggu ne ko bëgg dem Dakar fajar mu ne ma ah sa gaañe dañ ñëwoon dañ fi ñëw tey kon mënoo mënoo ko ñàkk teew danga xëy nag suñ la féetale woon lu ñu la fee loo loo xam ne dañ la koo féetale loolu dafay daal di doon sos bu rëy boo xam ne may itam am na lu rëy lu ma ci yokk loo xam ne lu may yónni ci leen danaa ko àggale ci bépp amaana ak ci bépp boo ayna boo xam ne damaa bëgg yëf yi am réussite lu tax bi ma ñëwee yàlla yombal yëpp maa ngi koy nettali biig ne ko bi nga biñ demee ci dëj ba eh, am na koo xam ne moom moom moom ak eh, Cheikh Ibrahim ñoo ñoo bokk ndeeg baay foofu laa ko laajte ngi ne mu ñu ne ba mu demee ca am na ay buuxante sax ba am ñu ne ko doo dugg ak mu ne ko waaye mu def ci def ju mat sëkk ndax ba mu demee bañ bañ demee dañoo foog ne dafay met sax dem këram mu daal di dem jiituñu ca fañ fa ñuy ewee ñëwee mu wax wax ju rafet waxul dara ci affaire yi ngaayo loolu tax na ñëpp gën a gën a ubbeeku tax na ma itam ma gën a ñëwee ne ko kooku daal gis naa ci moom ay alaama yoo xam ne alaama kii la alaama yoo xam ne ku mën a jiite njaboot la mu ne ma nag eh, eh, sëñ Aliou bi ñëw na mu ne Fuuta nekkoon léegi nag ñoom waxtaan ngeen ay waxtaan yu bari ci seen biir waaye nag da ngeen ne bala ngeen a eh, fasante dara da ñëw ci kanam sëriñ bi ndax jaayante ci kanamam mooy jaayante ci kanam Cheikh Ibrahim jaayante ci kanam Cheikh Ahmad Tijaan mooy mooy mooy mooy ci kanam yonentu yàlla Muhammad mooy wax ne ay ñett yëf nit ñi dañ koy bànneexoo rek waaye toujours suñ ne kii taalibe Baay la doy na ñu ne tijaan la doy na ñu ne ñu ne ñu ne jullit la waaw ñaari kon raa yëpp da nga ko remplir door a ñëw ci bàyyi door a am rek moom kon nag bi ngeen bi ngeen ñëwee teew fii su ngeen ñëwoon waxu leen benn baat sax doy na ñu xam ne maam soppeeku am na xam ne ubbeeku beneen bunt am na waaw bàyyi daf daan wax ne maam mu ne nit du du taxaw mu taxaw mënta am benn nga dem rek soo yëgoo yëgoo ne yaa ngi avancé rek na na la óor na yaa ngi arrière waaw ah, kon nag su fekkee ne Fatick ci dëkki dëkki capital yi gën a jege yi gën a jege jege jege jege Kaolack ñoom dañu ca ca jamono Baye sax Siin ak Saalum lay wax Baye wax na Siin wax na Siin lu yàgg Siin Saalum ah, ba nga xam ne ñaar ñaari tëyoo lëkkaloo nañ su fekkee ne administration bi ñëw ne ba fexe ba séparé itam ñu ne def Siin def Saalum ñun xam nañ ne Siin mooy Saalum Saalum mooy Siin kon nag su Mawlaana Cheikh Ibrahima toogee nii di Cheikh Ibrahima moom nga xam ne nañ xamoon yéen itam ngeen ngeen ngeen ñëw fii tey di jaayanteeg moom di jaayante ci kon am ñu xam nañu kon démbay tey ñu ngeen leen di kontaan di ñaan di ñaan eh, suñ mbokk mu ne ndax eh, ku xam Cheikh Ahmed Tidiane rek xam kóllëre kóllëreem diggante ak moom waaw gàmmu bi ñuy def daaru nga xam foofu la mooy dëkk yaayam sax daaw biñ koy def moom lañ ko tuddee mu ñëw teew fa nettali na taarixam ak alaqam ak sëriñ bi ba ba ba ñu ko xamutoon ñëpp xam ko comme moom su nekkee foofa rek xanaa kay moo tax biñ ba ma demee dama ne ko ñun yow lañ fekkele si ndax yow mën nga foo nekk Cheikh Tidiane nga fa fu Cheikh Tidiane nekk bàyyee nga fa waaw ma ne ko ko fi daal kii sotti ci ak def ci rek la ñu ngeen tatagale di ñaan yàlla lii rafet na waaye dal na xel itam dal xel gi mooy aw nit su fekkee ne am na loo xam ne mi ngi seen ñu ngi ko ñu ngi ko mi ngi seen njort te wanewuñ ko kuy ku keneen su ñëwee dafay dafay ragal dafay ragal a jege waaye lii ngeen def tey de adde su ngeen ñëw waxu leen benn baat xam nañ ne yëpp dellu na la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci xajatul wadaa mu ne al yawma qad istadarat shamsu kama ka yawma xalqa bis ni ki tey fekk daf ne ban bis ñu wax ko mu ne ban dëkk ci ban ban weer ba ñëpp point daf koy changé mu mu ndax jotal naa yàlla ñu ne ko jotal nga mu ne yàlla seddeel na jotal naa ba pare daal di sëgg ci suuf ne ndax jotal naa ñu wax mu joxañaat ci kaw ne yooyu yàlla seddeel na ñu ne jotal naa keroog la yow ak maltu lakum diinakum ah bis boobu loola nag ba léegi looloo fi nekk rek looloo fi nekk rek jaayante kóllëre ba yonent dem nee na leen bu ma dem yëpp leer na suma gannaaw bu ma dem ngeen di ngeen ngeen di ngeen deer ko itam su fekkee ne ta tool boo xam ne bàyyi ko fàkkoon ñooñu jaayanteek bàyyi ca ba jaa ànd ak bàyyi di jafe ba tey ku ci bokkutoon sax dañuy bokk bokkulu ah ngeen néew daal delloo si téeméer dafa mel ni démb mooy tey rek kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di leen ci kanam sëñ bi waaw su leen waxutoon dara itam ngeen xam ne gërëm ngeen waaw su fekkoon ne itam euh, yéen gërëmu leen duñ ñëw ma di ko ma di ko taagu di tukki ma ma toogal waaw loolu dafa waye ne faral na ma ci yéen itam maa ngi maa ngi kontaan ci loolu di ko di ko di di xam ne waxtu wu nekk euh, ay itteem ndax àddina bi yëpp lay lay lay kii li muy wax ci biti li muy li muy li muy def ci biti réew moo gën a bari kon nag ñun nga xam ne ay ndawam suñ fuñ dem ci duñ duñ dañu jaayante nag yàlla ne duñ def lu may lu ñu sant waaye moom duñu sant lu may lu ñu bàyyam daan sant kon démb tey dem démb tey ñu ngeen di gërëm di leen tatagal ñaan yàlla lii rafet na trop trop trop trop mënoon ngeen ko defee waaye nit ñi su ñi ci bokkut su ñu yëgee daje bi tey xam ne daje bu rëy la dañ xam ne dañ xam ne yëpp dellu na ca cosaan ngeen di ñaan yàlla yàlla jàppale ko ba nga xam ne dana àggale yëf yi fa fa nga xam ne foofu la bàyyi da doon ñi ki jiitu woon nekk ci itam yàlla mën na loolu yàlla ko yàlla def ñaan sëriñ bi waxtu nekk ñu ngi wax ne fu mbooloom Cheikh Tidiane daje buñ ñu defee seen wasifa wala buñ ñu defee ba pare danañ def dog def def def def def si amati yaan waaye def yu def defal bàyyi itam waaye toujours fu ma dem naa xam ne nañ defal Cheikh Ahmad Tidiane itam ñu koy ñëwee. ñu koy defal dog di ko ko xasal parce que doole julit mi ngi ci ñaan mi ngi ci mi ñaan ñaan mooy mooy mooy mu xiit julit kon nag nga xam ne en bu rëy bi ñu tekk ko waaw ba mu ko téye ba léegi gisuñu fi wàññeeku waaye mu yokku Ah, su ko neexoon mu ne am na ngànt ndax borom kudd du lakk su ko neexoon fu mu bëgg dem yónnee fa waaye du toog ñun sax dañuy def ay pexe suñu gisee loo xam ne dafay jéem di ko jéem a yëkkate yu fexe mu toog te eb te te eb ndax kàddoom rek doy na kàddu waaye nag moom bëggut a bëggut a baal boppam ci dara ndax dafa xër ci bëgg taalibe yi dafa xër ci àggale li baayam sémboon mu bëgg mu sotti ci jamonoom kon nag lépp lu semb yàlla na ko fekk yàlla na ko taal lim sembagul sax ci projet yàlla na ko yàlla fekkale ci fekk fekk may ko wér may ko jàmm incha allah jërëjëf ma zalika allah di wax ne jataay bi yàlla fexe na ba boolewaat ma ci maa ngi ko ci sant bu baax di ko gërëm ci une heure xew Fatick amee euh, bi ma la wooyee fekk nga nekk rendez-vous médical Dakar ndax ma ne ah Medina Leye ñëpp dem maa ngi koy jéem a woo waaye yow jéem ko jot boo ma ko njëkkee jot nga ne ko maa ngi koy wut na ma woo sëñ Mbacké wax na ko léegi la nga gis Fatick. mënul woon ñàkk liggéey rek moom solo euh, dama ne liggéey ba nga xam ni waa kër Omar Soxna liggéey nañ ko ci Fatick bés boobu noonu bàññees mënu fa woon ñàkk teew kon loolu day ñaax ni ñi ñu ne lu waay am yaa ko liggéeyal si bopp kon kuy sonn ci dara yàlla na bés ñëw sedd nekk fii te muy sedd ba nga xam ne moo ci gën Euh, leneen li may wax mooy euh, liggéey nañ liggéey boo xam ne ci dëkk boobu suñu dëkk dëkkandoo ya nga xam ne ñu nga fa di ay catholique balaa ci nit di wax ne balaa ci nit di wax nga xam ne kii li muy wax lu dëggu la ci moom mun la billahi barke Baye Niass loolu dëgg la wala dëgg bon loolu lu am solo la ñoo xam ne bokkuñu diina waaye nekk ci environnement bi bés buñ la ne wallahi barke Baye Niass xam ne la ñuy wax kenn dara mënu ko dindi loolu am solo leneen li ma ci teg sëñ bi junj junj na ko sëñ Macky dund na ko waxtaan wax dëgg ci la kër ga yaatu na liggéey ba yaatu na waaye day di sëñ ma Macky wax dama koy dëggal ndax la nga dund keroog maa ngi yow ko dund maa doon sa garde corps maa obligé woo police ñu ñëw aar la di aar sëriñ bi waaye li mu wax day dal na xel njaboot gi yaatu na njaboot nag yépp mënu la nekk benn waaye yow am nga sas woo xam ne sa obligation mooy nga dajale njaboot gi c'est important te dal ga nga dal keroog sëñ bi seedeel na ko boppam loon li xew dafa ñëw rek liir waaye comme ñoom yàlla daf leen may da xam na la nga xam ne mooy suite ba nee na la am na si yaakaar yaakaar boobu yàlla na ma ko yàlla tas c'est important mission la bu am importance ndax yaatuwaay na ya kër ga yaatu na yaatu boo xam ne yokk ko rek moo war warul di xaajale ko bu xaajale ko day néew doon doole bon nag boobu mission sëriñ bi gis na ko samp na la ko yal na la ci yàlla jàppale lii daal laa ci boona wax merci beaucoup waaw soo min famille euh, euh, euh, dañu ñëwoon ziare si dégg ngeen leen présenté nañ délégation bi ku ci nekk ñu tudd turam ak santam seet si sëriñ bi Cheikh Macky dégg ngeen kàddu bu rafet bi nga xam ne wax na ko ndax moom la fa sëriñ bi yónni woon ci xeet ay délégué mu nekk fa Euh, dégg ngeen li mu wax euh, ci ndigali sëñ bi la ko wax li mu leen wax rek mooy ne mbooloo la am mbooloo yombul waaye yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digale ne jullit buñ xasee mag ñett ci barab rek ñett ñi war na ñu jël kenn jiital ko buñ jiitalee kenn nag mbooloo mi ci des ñuy topp ci gannaawam ànd mbooloo yitim li ci Mawlaay Cheikh al dinkaane woon mooy ne ki mag dafay yërëm ñi nga xam ne ñoo féetee suuf ñi féetee suuf itam ñi féetee suuf itam nangul ki nga xam ne moo féetee mag buñ ko defee rek ànd bi day daal di yomb Euh, digg na xalifa bi nag sant na xalifa bi ne ko na dajale mission am mooy mu dajale njaboot gi yëpp suñ dajalee njaboot gi nag topp li mu laay cheikh al islam rek moo moo waxoon mooy li am mooy ne ci mag dafay jiitu ñu jox ko cëram ixtiraam ko waaye itam ki nga xam ne moo mag moom itam dafay yërëm ñi nga xam ne ñoo ko féetee suuf bu ñu ko defee rek ànd bi day daal di yomb jamono bii ñu nekk kenn ku ci nekk am nga say masaalix am nga ay intérêt intérêt yi yaa koy défendre sa boppam waaye nag am nañ intérêt boo xam ne mbooloo mi ñoo ko bokk intérêt bi mbooloo mi bokk nag kenn mënta beru moom kenn faj saafaral ko boppam dañuy ànd ñu mbooloo mi kilifa yi jiitu ndaw yi topp ci gannaaw buñ ko defee rek fiñ bugg a jëm dañ fa yegg incha allah kàddu yooyu rek lañ daan jottali mu ko defee jërëjëf sant yàlla di feddali coloré su fekkee ne Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu taala anhu moo ñu jàngal boppam pare defal ñu seyru bi nga xam ne moom la ñuy toppal ci kawam mu ne ida saara xayru naasi sirtu waraahu wa in xalla yowman fal masiru bàyyidu ndax uh, yonent fu mu teggi tànkam mu teg ci tànkam mu teg tànkam topp ci waaye su yonent bi taxawee tax xam ne ne moom yonent bi taxaw loolu tax ñu xam ne kon masira bi bàyyi yoon wi yoon wi gudd na gudd na mooy fexe ba nga xam ne li nga xam ne moo nekkoon démb doon tey dem doon suba itam ci niñ ko amee ci sa dara nekkul ci lu bees lu mooy diine yi yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi ko Cheikh Ahmad Tidiane ñëw beesal ko Mawlana Cheikh Ibrahima andi ko ba nga xam ne ñun tam jot nañ suñ cër ñun Afrique surtout ak àddina bi yëpp daje kon nag su fekkoo fekkee ne euh, masiré boobu ku ci bëgg aw da nga xam ne dana am gàllankoor yu nekk xol bu sell moo ëpp gàllankoor yooyu daje bi xamoon na dana amee ni tey ndax ma dama ñëw di tàggu tàggu sëriñ bi mu ne ma sa gaay yi kat dañ fi ñëw suba bi ma waxee ne sa gaay yi rek nga xam ne loolu séddoo séddoo yàlla la ndax moom ñoom ay gaayam lañ moom moom muy gaayu bàyyi kon nekk su ma waxee loolu rek mooy maanaam maanaam sedd na fa xam na ne yu bëri yoo xam ne moom moom la war waaw su ma ko waxee guddi su ma waxee toujours damay wax suma kër ne ma mukhe xamul fu moy fanaan ndax mën naa toog ba trois heures du matin wala yooyu sëñ bi tey ah yëg nga diw diw mais tey suba Nouakchott la wala wala wala wala Nigéria la wala yooyu ma xëy su ma su ma kat dañuy xëy rek gis tukki naa ci guddi ah loolu nag kon suñ ci boolee waa Fatick yi nga xam ne ñoom ay soppe yu yàgg lañ alaa yëpp daal dafa waxoon nañu li bàyyi mënoon mënuma ko ndax bàyyi moom mu nekkoon ci gox yi ne ci jëm yi kenn ku nekk ba léegi bu seen nga gis nit koo xam ne dana wax ne fi ma jaar ak bàyyi jaar fa ak doomam sax xam nañ relation bi ñëpp lool mu ne loolu nag moom léeg-léeg léeg nit dara xew fi ñëw fekk ma nga tay ba wala mu fekk yaramam neexul mu ne damaa bëgg gox yi bu nekk ma am ku ma fa teg nga xam ne ñoom suñu amee lu urgent daañu la ko wax soo ko mënee réglé ba rek na soo ko mënta réglé ak si man la njëkk a wax loolu mu ne ma tànnal boobu ba may tànn dëkk yooyu nga xam ne caa doon ne moom Fatick ci la bokkoon. Fatick ci la bokkoon moom moo waxoon kër Aliou boobu ba. def naa def naa ay kii ba mujj léegi sax mujj naa am fa am fa am fa kër. après gannaaw gi ñu ne ma ma ma ne ma ne woon Fatick. wala Sokone. wala wala cees Thiès. yooyu dëkk yooyu ñoom moom foo xam ne dama fay teg dama fay affecté. su fekkee man am naa tànn ñetti yooyu daal. Mm. Ah, kii kii Fall. Ah, Aliou Fall xam na ci bu baax. dëgg ñaar fukki at dox naa ay dox naa ay waaye li ñuy wax ne lu yomb lu jeex lu jot yomb. Mm. kër googu demoon naa ba déposé ñu ne waaye kër kër kër kër kër bàyyi la. Mm. maa doon toppatoo kër yi def ko maxal boo xam ne comme ni kër bàyyi mel ci jëppal. loolu mm. la ñu ko war a defee yooyu. waaye mujj gi sax Aliou bi ñu ci yàggee dox. ndax ah, gannaaw gi dem na ba ne ma dafa nañu ñetti sëriñ bi moom bees. mooy fi ñu fi fi ñu rob sëriñ bi sax. Mm-hmm. keroog keroog ci boobu la wax ne mu ne kër gaa gi nii. Mm-hmm. waaw nga xam ne kon maanaam lu jot rek yomb. Mm-hmm. waaw kon xam xel na ni fu dem mën nañu faa nekkal. amuñ lu mooy lu ñu sant ñu suñu santee daal yàlla dimbale fii bañ def ko nag. duut suñ nguur ak waaye nguur ak ki nga xam ne moo ñu jox ndigal li ndigal la nag dañu leen di ñaan yàlla di leen taral loxo di leen yégal ne lépp lu ngeen xewle lépp luy seen yëngatu ak seen dal suñ ko yégee suñu sëriñ bi nekkee dinañ su ma su ma ebalee ma dem su ma ebalee sama gannaaw nee ma sa waaj kii <laughs> la waaw incha allah maa ngi leen yàlla yàlla jàppale démb ci guddi bi man koy tàggu te wax ma mu ne ma sa gars yi dañ fi ñëw suba waaw boobu loo ko nett nett xew-xew mu ne ko mm. sëñ mu ne ko sëñ Aliou mii gis naa ci moom ay jikko yoo xam ne jikko jikkoy zaayim la ndax keroog am na ay gestes euh, su sekkoon ne moom boppam rek lay lay lay joué mën naa mer gedd. Mm-hmm. bi mu demee sax dañoo dafa mooy dafa def ko waaye bañ demee ba rob. Mm-hmm. ñëw fekk mu toog waxul dara ci. macha kii xam na ne ay jàmbur ak mm-hmm. du du du waxi mbooloo. mu daal di wax rafetal ko ba mu rafetal boo xëy. ña ña ña ña jàkkoon ñëpp mujj nañu óolu. ma ne ma ne daal óolu naa óolu naa ko te xam naa ne fees na place. kon nag ñu ñaan yàlla yàlla may la wér may la kattan jotal càkkuteef. sara kii li lii yombut yombut nga am sa kii ñëwee ndax nit suñ ne diw baax na ñëwee ndax mbokk yaa ko wax waaye ñoom sa rakk ñëw seq la daal ñëw fii nga jaayanteeg ma Ahmada Tidiane loolu lu rëy la lu kawe la loo xam ne waaw maam commencé na maa la waaye incha allah da nga gis yomb yëpp ci kanam yàlla yokk dara nga may leen ndam jotoon borom ca ba ba dellu ca ca ca cap ba mel ni Kossé ak Taïba incha allah. mbokku téléspectateur Kossy TV ci noonu la ñuy tàggatikoo ak yéen dem fi nga xamante ne nii mooy kër Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass fas yéene fa ànd ak yéen si liggéey bi nga xamante ne nii ñu ngi koy def fee si diwaanu euh, Fatick lañ jógee ko dikkoon siyaara si xalifa bi si Ahmed Tidiane Ibrahim Niass yàlla na fi yàgg te ànd ak wér di ko ñaan yàlla fan bu gudd ba ànd ak wér famille baa ngi noonu di génn dem fi nga xamante ne moo nekk kër Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass bu ñu fa jógee ko egg Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass di ko siyaar di ko ñaan yàlla fan bu gudd ba jërëgéen jëf ñu ànd ak yéen tuuti ci kanam fas yéene dem fee ci kër Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass ci kanam tuuti jërëgéen jëf la liggéey fay du baay bi ci barahama Mourchid TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi siidi barxama ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy